kon mbokk yi nañu xam ni sunna moom moom rek moo war a féete kaw ndax bidaa safara la gémmiñ loolu la yonent bi wax dugal ko sa gémmiñ nga màtt ko pour nga ànd ak moom fit moo la koy may soo amul fit doo dem soo ragalee coow doo dem xatta ba ci duaat yi ndeysaan maa ngi am benn kii buñ ma yónnee woon semaine te ki ma ko yónnee nit nitu tariqa la xam naa daa foog ne rek <laughs> gars yi dañu wut ay fitna benn waay bu def benn xutba eh, di dal benn mbokk di dal xale yi maanaam ci sunna daal dafa am benn jógin bu bees maa ngi leen koy dénk de jóg leen jóginu sunna yéen ñëpp xale yi moo bu ñu jógul jógu sunna lu ñu jóg jógu biddaa waliyaadu billah yàlla nañu yàlla musal ci ñu jóg jógu biddaa incha allah ci sunna la ñuy jóg ndax loolu la ñu bi dénkoon loolu la dénkoon ndaw ñi loolu la dénkoon sabaab yi loolu ci la war a jóg waaw mbokk yi bu ñu jàppul sunna jóg pour tey sunna nan la ñuy def nan la ñuy def dañuy nekk fii di maslaa ay caaxaan dañuy nekk fii di ànd ak ay ahlu bida ñoo xam ni caaxaan ci la nekk wala ñun dañoo bëgg a jël diine jii di ko def maslaa di waxee ni mu ñu neexee déedéet mbokk yi amul benn ahlu sunna bu dul jàng alquran ku wax leneen yaa ko sos mais amut wallahi ahlu sunna yi ñoo fiy jàng alquran ñoo ko fiy jàng de ñoo fi yore daara yi de yi fi ëpp ñoo ko yore ñoo fiy jëfee alquran nit munul dund sunna te jàngul alquran munul nekk munul nekk dooma génnel benn ndaw ci sabab yi kuy ñëw ci sunna bàyyi alquran amul ki ko wax waxut lu am amul seytaane da ko mën rek mais waxut lu am bakkan la waxe mais xam na ni ahlu sunna yi dañuy jëfe alquran di jëfee sunna ñoo fi jàng riwaayaat yi ñoom ñoo koy naafila guddi ñoo nekk ñoo xamante ni li alquran jàngale loolu la ñuy jëfee ci biir saxaaba yi dafa am ñu mokkaloon am ñu mokkalul loolu moo am ba tey am na ci ahlu sunna yi ñu mokkal ak ñu mokkalul kon mbokk yi jóg leen jógam sunna yéen ndaw ñi jóg leen jógam sunna loola mooy dëgg jóg leen jógam sunna te ngeen moytu jógam bida ngeen comprendre ñaari mbir dafa am ñoo xam ne ragal moo leen di jàpp ba ñuy maslaa bay maasale te bàyyiwuñ ko xel loolu nag dafa am ci nit yi dafa am ci nit ñi ñoo xam ne dañoo xaw a ragal nattu la donte nak nekkul lu bon ndax ragal day am waye nak ndaw ñi ku len encourager wul wax deug yàlla waro leen waro waroo leen a déstabiliser waro le na déstabiliser kon mbok yi wa atiu allah wa atiu rasul dama am kersa sax ndax bima waji waa lolou wallahi bëggon na ci wax mais damay am kersa damay rus dama am kersa lool ndax am na lool boo ci waxee dalay jaxaseeg sa nit dalay jaxaseeg sa nit te doo xam lan mooy sabab bi doo comprendre wallaay damay toog di ci xalaat di ci xalaat ba ci àgg ma ne man comprendre ma ko lii lii pour lan la ko pour lan daf may jaaxal moo tax mbokk yi nañu xam ni sunna mooy gaalu yonent yàlla nuux ku ci yéeg da mucc pour nga yéeg ci nag il faut ñu góorgóorlu ñu jàng mbokk yi nañu gën a góorlu ci jàng dem ci xalqa yi ci jiit yi dem ci ustaas yi gàdd suñuy téere bu ñu ñëw rek nag <coughs> ne dañuy dund sunna te yokk wuñu ci alquran yokk wuñ ci sunna loolu moom baaxul kon li may dénkaane mooy ku nekk ci yéen na góor góorlu ba ut ab téeréem seet boroom xam-xam bu mu wóolu xam-xamam te njub na ci moom ndax kat wa ulul ilmi qaa'iman bil qist nga dem jàng te ñu jàng nag mbokk yi nañ leen góorgóorlu jàng dund sunna juróomi at nag te ba léegi mënoo liir alquran moom loolu gàcce la xam naa du ñàkk ka wax looloo tax muy wax waaye xëy na na mu ko waxee la xaw a doyee waar rek waaye nag damay wax ni ku nekk ci yéen ne dugg néegam visiter boppam xool ndax man la ñuy wax wala déet mbokk yi il faut ñu jàng nag dëgg dëgg il faut ñu jàng gis nga boo jàngul foo nekk bis dana ñëw ñu toroxal la parce que foo nekk gis nga nit ñi yàllaa leen dimbale de fu ahlu sunna nekk bu ñu ay masala diine yow lañ koy laaj <laughs> eh, na ngeen ko xam de laay laa ku nekk ci yéen dal na la koñ ba ngeen léeg-léeg gis benn paaw baa ñëw sa gëseet waaw sama doom lii moom nangam mais dalaa yaakaar ci loolu mais bu la yaakaaree ci loolu yow nga toog rek jàngi woo du sotti il faut ngeen di jàng mbokk ngeen di organiser wu ut programme góor ñi bu leen foog ni jigéen ñi rek ay jàng man man xalqa jigéen ñi rek laay gis ñoom maama di ne fii di jàngale ñee di jàngale jigéen ñi mais góor ñoom daw rek uti dépense ñëw rek il faut ñu boole programme jàng nag Etienne programme jàng oustaz yaa ngi fi bu ngeen utee téere patron Etienne di ku ñëwul ñu ne eh, da ngay ñëw bismillahi irrahmaani irrahim noo ngi sant borom bi tabaraka wa di ñaan yàlla jàmm ak xéewal ak mucc na doteeku ca sunu sang ba sayyiduna muhammad صلى الله عليه وآله وسلم بلولو وين غلين دي نيو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انغيسات ليغا خامني موم لا بوك اندالي كي تي واخ دا في تي يو ري لا ريك كوكو ديغا خامني دو نونو am nañu koy dégg ci julit ñi jàppane noonu ba pare topp ko gëm ko ba mën na leen a indil gàllankoor loolu danañ wax ji. ba leen sëriñ bi yebal lam leen sartaloon wax leen bu ngeen ci saxee yii maa ko koy waraloon loolu ñëpp xam nañ ko. àggoon na ci boo wax ne eh, suuf daana wax ne suuf Tuubaa day ràmmu nit. nee na li ma ci ku faatu bu ma ko ci defut tam suuf Tuubaa mën na koo def kon ku fi dëkk te sax fi neew na seenu seen àjjana ajuma ci ajuma ko seenu jaam yàlla gu néew. sen teranga aju mako ci sen mm, sakku wërse gu bari te ñi fi dëkk ñëpp xam nañ ne loolu suñ tubaab fagul ne ne ko ngir bañ a guddal dafa wax ne kilifa goo xam ne ci dëkk la nekkoon moo fàggul ña dëkk ca dëkk ba ne ku fa dëkk bu ëllëgee aljanna nga jëm waaye ña dëkk cee dëkk baat moo leen fàggul wërsëg wu ñuy suturloo fii ci àdduna mbokki jullit yi lii wax la ju rëy lii de ña nga xam ne dañoo weddi woon yàlla yàlla yónni ci ñoom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xalaatuñu woon a wax wax ju mel nii ñemewuñ ko woon bal alquran andil nañu luy firndeel ni ñoom boo leen daan laaj na leen kan moo moom gis akub dégg kan mooy ki nga xamante ne mooy manipulé àdduna bi nga xam ne lépp ci loxoom la ne kan moo leen di wërsëgal ci asamaan ak suuf boo leen ko daan laaj dañ naan yàlla te ñooñu day ñoom la yàlla yónni woon ci ñoom sayyiduna muhammad ngir mu woo leen ngir ñu dugg ci biir lislaam kon tey yonent bi buñ nekkoon saw xeet am na ñu ciy wax ñoo xam ne dañ ne gëm nañ la di woote woone ay kilifa lañ ci sa diine ji la yàlla jox muy lislaam dañuy wax ne nit dana fàggul moroomam ne bu dëkkee dëkk sàngam bu ëllëgee mu dem aljan bu dëkkee ci dëkk boobee itam nit ka nga xam ne moo sos dëkk ba fàggul na ko wërsëgam wi muy am ci àdduna loolu de ku ko wax yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu boobaa lam cay teg mooy comme bu ëllëgee yowmal qiyaama li ñu lim ñu nettali ne aw nit danañ ñëw bu ëllëgee maanaana saa xeet saw xeet saw xeet bu ko defee ñu ne ma xamoo ñii lan lañ sos sa gan bu boobaa yonent bi lu mu cay teg suxqan suxqan bi maanaa accam wala lu bon ñeel na leen kon comme que sos nañ sama gannaaw loo xamante ne ay njombe la kon ñi yàlla yónni woon ci ñoom sayyiduna ñi nga xamante ne sayyiduna Muhammad ci ñoom la leen yàlla yónni woon la ko yàlla yónni woon ñeme wuñu woon a wax wax ju mel wax ji nag jërul nit ki di gudd ab xam-xam wala mu koy rëyle ngir xam ne du noonu ndax ku ne xam na ni yonent yàlla muhammad moo gën ci mbindee fi dëkk ba nga xam ne fa la juddoo mooy màkk mooy ngën ji dëkk dëkk ba mu gàddaay dem faatu fa ñu rob ko fa moo topp ci màkk ci wàllu ngëneel ñaari dëkk yooyu ñoo gën ci dëkk yi ne ci àdduna te nag dëkk sàngam am na ngëneel sàngam loolu sharia képp moo koy indi du benn waay muy ñëw daan ne man kët dëkk ba ma dëkk am na ngëneel sàngam ak sàngam ak sàngam bu boobaa dañ naan ko loolu fan la ko yàlla wax wala fan la ko yonent bi wax kon wax jii li julit bi njëkk war a njëkk a wax mooy lii fan la ko yàlla wax wala fan la ko yonent yàlla muhammad wax kon màkka ga nga xam ne fa la yonent bi juddoo muy ngën ji dëkk nga xam ne moo gën ci dëkk yi ne ci àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala yàlla musul wax ne ku fa dëkk bu ëllëgee aljana bal ay nit dëkk nañ fa nekk ak yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñooy matt may sa sawara kon bépp dëkk bu nit di wooteel ngëneel te saxul ci sharia makka la gën te makka amul ngeneen lu toll nii kon fan la nit di waxe ne dëkk sàngam bi ma sos wala bi diw sàngam sos ku fa dëkk bu ëllëgee da ngay dem aljana ka ko sos moo la ko fàggul kooku ndax moo ëpp martaba yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi de fàggulul kenn aljanna ndax màkka la dëkk wala madina la dëkk ndax dëkk booba moo ëpp ngëneel màkka ak madina déedéet loolu rek doy na sëkk ngir nit ki xam ne kon wax la joo xam ne dees koy delloo waye nak dañuy xupp doomu adama yi di leen wattandikuloo wax ju melni ak ñi wax wax ju melni ndax man nañu yobbe nit ki njombe wu reuy man nañ ko yobbe safaan lolu motax dëkk yo xamantene des fay wax wax ju melni nga xamne tegeewul ci sharia leg leg nga deg ay njombe yu reuy yu fay xew ndax ñi fay dëkk dañuy woru ci liñ leen di taralal wane ne dëkk bi bo fi dekké aljana nga jëm bu ko defé ñoña lañ cey déggé moy kon nañ def lu nu neex motax tax njombe wu ne nga koy dégg kon lolu da fay influencer julit ñi ngir ñu banaliser mooy yàlla yi nga xamante ne yàlla da koo tere wala ñuy sàggan ci wareef yi nga xam ne sharia da koo digle ndax dañoo gëm ne dëkk ba moom moo leen di ràmm ku fa dëkk bu ëllëgee aljanna nga jëm mbokk yi diine du bu doon dëkk boo xam ne ku fa dëkk dem aljanna makkaa ci gën a yella te amu ko yàlla waxu ko yonent bi waxu ko wala madina topp ca yàlla waxu ko yonent bi waxu ko beneen bi nag mooy ku fa dëkk kilifa ga moo lay fàggul aljanna moo lay fàggul boog wërsëg bi nga xam ne moom ngay suturloo fii ci àdduna. ndax am nañ yaqin ci ne ku fi ku fi dëkk boo liggéey da nga tàbbi àjjana waaye ñi fi dund itam kenn ku ci ne xam nga ne sa teraanga Sëriñ Tuubaa la ko yorul kon nag ñu ngi ciy soññ bokk teel bi yëpp. mbokki jullit yi loolu boo ko déggee ñu bari bari buñ ko déggee dañu daan yaa ah, eskay yaakaar nañ ca diwuk mbaax yonent bee ko ëppuk mbaax te yàlla joxu ko loolu amul kenn ku dëkk Màkka wala Madina koo xam ne yonent bi moo la fàggul ba muy dund wallis bi mu faatoo wërsëg loolu yàlla mo koy fagul doomu adamay mo koy yor ci loxom ku mu jaar ci sa loxo ci ko xamne masalan koy dalay lay yow nga diko fay kooka sabab rek la waye yàlla mo dogal ne koku ngay liggéeyal mu di la fay fama baluko ko xamne xam ko fayula yëgul ne sax am nga bo deme noonu lay fagulé wërsëg te yàlla ne wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allah rizqaha yàlla ne na amul jenn daaba jo xamne yaangi dox ci kaw suuf muy nit muy bayuma lila yàlla di wërsëgal nee na li ngay am ci wërsëg yàlla nee na man maa ko yor illa ala allahi rizquha yàlla moo yor wërsëgu jaam ñëpp moo yor wërsëgu mbindeef ñëpp kon kenn fàggulul kenn lenn lan mooy firndeel loolu mooy ña dëkk ca dëkk ba ba muy wax nañuy fàggoo di am noonu la ñeneen ñi dëkk ci yeneen dëkk yi di fàggoo di am ëppale wuñu leen dara ci côté boobu kon ñëpp a ngi fàggu di am ci ngëneelal sunu borom te it nit ñi wuute ci wàllu wërsëg والله فضل بعضكم على بعض في الرزق بروم بي تبارك وتعالى نينا من مالين غنله نين ني اوب ورسك نينن موتاخ ني دك تي دك بوبا ني دك فنن ньо ياب بوك يام تي ني ام نانيو فا ام لو باري لو ني غاني ام نانيو ام لو دوي سينو لو لين دوي ام نانيو خامني لا ني ام دوي لين دانيو نياك دانيو سو دانيو اديو نيت ني ديمبالي لين نام امي تي دك يويا بوبا نون لاي امي تي بنين دك بومو كون بونيو ناخي بونيو ناخي بيب دك نك من نيت كي من نافا واخ لو ملني جيم جي دي واخ سو نيهون مونيا man kat mbajaar ga ma dëkk ku fa dëkk boo legee sa yaram aram na sawara wala faggul ku fa dëkk faggul naa la loo xamante ne moom ngay dunde ci àdduna ndax ña dëkk ci dëkk ba ña ngay fàggu di dund boo leen waxee loolu buñ ko gëmee dañuy jàpp ne la ñuy fàggu di dund ñoo ko moom fekk ne ba nga ko waxagul ak ba ba nga ganeegul àdduna nit ñi dañ doon fàggu di dund ba nga xëy gane àdduna yow mi ñuy mi ñu koy jiiñ ngay fàggu di dund ba xëy suba yàlla jële la fi ñi des sa gannaaw di fàggu di dund ñëpp yàlla yor seen wërsëg kon mbokki jullit di nanu delloo si sunu xel te gëm yàlla wóolu yàlla doyloo yàlla sunub dëkk kët am na ñu fiy tafu ay pas-pas lii ci tafu pas-pas la bokk ndax lii kuñ ko gëmloo ba nga gëm ko tafu nañ sa pas-pas te boo xalaatee tuuti Makka ak Madina xalaat yonent bi xam ne ki la koy digg yonent bee ko gën wala kiñ la wax ne moo la koy dig yonent bee ko gën dëkk biñ la koy digee Makka ma Madina ko gën te taxul yàlla wax fa wala yonent bi wax fa lu mel na kon lii lu leer naññi la kon bu bu kenn nangu ñuy tafu sa pas-pas ñi nga xamante ne ay kilifa lañ ci diine waaye waaye bu ñuy wax ak nit ñi nañ leen wax li yàlla wax ko bu yonentam ñu ànd ak ñi leen topp jaamu yàlla képp duñ ko boole kenn topp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ñuy def lépp ñu teg ko ci ndigalam ngir mën a ànd yegg ci ngërëmal borom bi tabaraka wa taala lii mooy tax a mucc ku deful lii bu ëllëgee da ngay perte te bu boobaa xuloo rek moo fay am ci ñi ñi doon toppee ak ñañ doon topp comme ni ñu ko yàlla nettalee ci alquran te ñañ doon topp bu ëllëgee dañuy dañ ci ñoom ña doon topp matt seen baaraam naan buñ dellu woon adduna tey danañ dañ ci yéen comme ni ngeen dañee ci ñun tey yàlla nettali nañu lii te lu mu wax dëgg la lu tax ñu toog kon nangoo fasse sunuy loxo ñu takk ay buum ci sunu nosug bakkan di ñu diri foo xamante ne bokkul ak fi nga xam ne foom la yàlla bëgg subhanahu wa taala kon bu ñu nangu kenn di tafu sunu pas-pas ñu nangu kenn di tafu sunu pas-pas ngi ñaan borom bi tabaraka wa taala boolenu defal tawfiq wallahu taala aalam wa sallallahu ala nabiyina muhammad